ñaareel tom bi euh, sunu jarbaat bu ñuy wax Babacar Fall euh, moom moo ci wax muy li ñuy tudde silatu rahim muy jokk ak bokk moom itam muy tomb bu am solo incha daañu ko jox moom itam vingt minutes lañ ko may moom itam mu waxal ñu ci tomb boobu kon sëñ Babacar bismillah allahuma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala nabiyin tanxallu bihi al uqadu wa tanfariju bihi alkurabu wa tuqdaa bihi alxawaa'iju wa tunaalu bihi raqaa'ibu xasnu alxawaatim wa yustasqa alghamaamu bi wajhi alkariim wa ala aalihi wa sahbihi wa sallim tasliiman mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di bu baax ci barab bii nga xam ne dañ koy tàmbalee ci ak sant yàlla di ko tëj ci ak sant yàlla ndax loo teewe woon daaw nga teewaat ko ren te lépp la nga ci doon def di tegtale ngërëmal yàlla am ñu ko fàdd ñu bari tey it amoon pexe yu mel na yi nga am amoon njàmbaar gu mel ne gi nga am amoon yéene ju mel ne ji nga am waaye yàlla fekkeewu leen fekkee lu leen ko ku ko fekkee ku ne war ngaa sant yàlla suñu borom ginnaaw boo toogee ba jekkes di ko ba noppi nga xool ni ko wuute la leen la leen ko la leen ko wuuteeloo ak li la ko teewloo nga xam ne génnul génn jëmm ji nga xam ne nii ca coobareem lay doxee ànd ak jàmm waxtaan wi nag ginnaaw dafa waxtu daa gàtt alxuraan dañuy wax ne lépp looy wax soo ko ajee wax nga dëgg su juyoo moom nag wax jooju dañ ko war a teg fu kenn dul jëfandikoo ay wax sunu borom nee na bismillahi rahmaani rahim yaa ayuha nnaasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxidatin wa xalaqa minha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa wa taqu llaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana aleykum nag la wax kon ñëpp dugg nañ ci biir mu ne nit ñi ragal leen yàlla seen borom mi leen ndax nim leen notee ak nim leen jokkoo ak man man jim am ci yéen dara merut ne moom moo tax sëriñ Tuubaa waxoon ne maa in lahu fi zaati wal fi wa fi saanin afaalihi saani wa man saa fii nee na suñ borom ni mu mel ci jëmm suñ borom ni mu mel ci melo suñ borom ni muy jëfee kenn kenn kenn ñaari lu ci kon melo yàlla suñ borom woowu ba tax mu ne na ngeen na ngeen ma ragal te wattandiku ma bu baax te ngeen di fas yéene mbokk gi nga xam ne maa ko awale ci seen diggante ngeen di ko sàmm bu baax a baax bu leen xam-xam dox seen digganteeg jokk seen mbokk bu am-am dox seen digganteeg jokk seen mbokk bu man-man it dox seen digganteeg jokk seen i mbokk mu waxaat feneen ne waabudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana boo jàllee ci aaya ba am na yeneen yu mu indi waaye suñ borom daal lëkkale foofu jaamu yàlla ak fonk ay way jur ñaari waajur ndax ñaari waajur ñooy cosaani mbokk mbokk bu ñu bu ñu doon wax cosaan cosaani mbokk mooy ñaari waajur bu ñu dee wax ak mbokk ñoom ñoo ko meññ suñu borom ne dig digal doomu aadama bi ne ko yéen ñi nga xam ne wala ñi nga xam ne yàlla dimbali na leen saa yu dëgg teewee ci seen kanam ak daraja ñu mën a am mbir ñu mën a làmboo danañ nangoo wàcc ci seen daraja ànd ak dëgg jooju donte dañoo juum mu ne ñooñu de af man yaalamu annama unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa ama innama yatazakkaru ulil albaab ndax ki nga xam ne nii li ma wàccee ci yow xam ne ne dëgg na te jàpp na ne dëgg na ndax dana yem ak ki nga xam ne nii daal lànk bañ a dégg dëgg bañ koo nangu ci ay noppam bañ koo bañ koo xool ci ay bëtam kon ñaar ñoo ñooñu ñaar mënu ñoo yem waaye daa am ñu muy tàgg ne ñooñu bokk na ci wallazina yasluuna maa amara allahu bihi an yusal bokk na ci ñi nga xam ne li leen yàlla jokkuloo dañ ko nangoo jóg ñu tënk yu gàtt ci ay nit ñoo xam ne bi suñu borom jokkaloo seen i mbokk bi ñu ko jokkee gis nañ ci ay résultat ku ñu mel ne Abu Yazid al Bustami wali wu baax la ñu bari xam nañu waaye juróom wu jigéen da koo yónni ndox ci jamonoy sedd mu dee mu mu jëli ndox mi ñëw fekk waajur wu jigéen wa di nelaw mu taayi ko teg ci suuf ngir war ko téye ko téye ko téye ko ba ndox mi wax na seddaay bi da koy jàpp ba mu jigi mu mel na lu am glace ci loxoom waajuram bi mu yeewoo ne ko ana ndox mi mu ne mu ne ko mu ngi nii mu téye ko bi mu ko bifee nee na deru loxo bi daa daa daa toppaale pot ba ngir seddaay bi waajur wi xool ko ne ko lii lu mu mu xamal ko la ko sabab mu ne yàlla suñ borom kii de sama doom la gërëm naa ko maa ngi lay ñaan nga gërëm ko Abu Yasid al-Bustami yi moom am na beneen guddi ko xam ne waajur mu jigéen da ko woo ne ko damaa bëggoon nga ñëw wéttali ma mu ñëw wéttali ko ne na boobu am naa ñaar fukki at waaye bi ma koy sama loxo nekk ci ron suufam maanaam sama loxo moo moo ko féere suuf ba mu jigi sama loxo bi met lool waaye warmaal naa ko ba mënu ma koo wax ne ko sama loxo baa ngi met waaye yëg naa ne sama loxo bi toqi na nee na guddi googu damaa amoon yéene julli guddi lool waaye nag duma ma ko jënde mukk lii sama waajur soxla ci moom ma di ko gàntal nee na noonu ma tëddee moom rek jàng naa fa fukki junniy lixlaas ngir rek dundale ko guddi gi ak topp sama waajur wi ngir bëgg am ngërëmal yàlla ci moom dañ ba mu faatoo dañ ko gis muy naaw ci biir aljana ñu ne ko daraja ji ju la ko may mu ne nangul gi ma nanguloon sama waajur jigéen woowu loolu nga xam ne moo doon sàkku ci man kon benn njëriñ a ngi noonu boo xam ne nii jokk ak am na ko waaye ci biir boo xam ne cosaan ci li bàyyi ko muy euh, ñaari waajur bi ci des ci yi nga xam day day jekkeel ne jokk mbokk lu am solo la mooy Seydina Muusa am na ay nit ñun digaloon ñoo xam ne dañ leen wax na ngeen rey aw nag su ngeen ko rendee diw mii nga xam ne nii kii kooku mi ngi tuddoon ku ñuy wax amil amil ku ñu ak achil ay bokk lañu woon kii dañ koy dencal soxna sa kee bëgg jot ci soxna sa tax mu daal koy rey ci kaw ay pexe loolu ba mu ba mu sottee yàlla dogaloon ku ñu wax Haamaan baayam tuddoon Isxaaqa moo moomoon nag woowu da koo doon ci baayam waaye ku déggaloon waajuram bu jigéen la ndax waajuram bu jigéen àgg na ci ba ne ko nag bi bu ko jaay loolu sama ndigal dem na ci marché bi ñu gaaral ko ci njëglu njëglu lu bari mu ne awma ci ndigal sama waajur daal di laaj waajuramu jigéen waaye lu ko ci suñu borom fayee topp ndigal waajur woowu mooy suñ borom moo jël nag wi melal ko ci ay melokaan yoo xam ne nag woowu danga ni ko melal nag woo xam ne ni day day puur nag wi mës ta bay tey duñ ko jëfandikoo ci lu bari nag wi rëyut tuutut indi ko ci ay melokaan yu bari moo tax bañ koy laaj xaa lu doxal lanaa rabbak yu bayil lanaa maa hiya maa law naha yooyu yëpp laaj nañ ko ci biir mu takkil leen ñen na na nag wooy mel waaye bo nga ko tàmbalee ci la faaridu wala bikrun awaanu bayna zalik fa fa'alu ma tumaroon biñ diggaatee bi ba di ko laaj mu indi leen meleen ak yëpp am jeex waaye lan la ca gone ga am daa daa mujj giir gi nga xam ne ñoom lañ jàpp seeni mbokk tuumaal leen na ñoo rey amil dañoo mënut woon ñàkk ba ñu jënd nag ba ñu koy jënd ñu ngi ko jëndee ñaari junniy diinaar te ku ñàkkoon la moom gone gi kon topp ndigal waajuram moo ko may tawféex gi mu am nii ginnaaw bu mu doonee woon bi ñu doonee woon ñu ñàkk waajuram Isxaq sax dañ ko dañ ko rayoon ci kaw néew doole jokk mbokk ñëw na foofu ndax kii mi ngi jokk waajuram bu jigéen ba far jëlee ca tawfeex goo xam ne suñu borom moo ko defal Seydina Moussa bàyyi ko ne ci dëkk bu ñuy wax Antakiya jëm saam suñu dogal mu son lool ci yoon wi ba dem suñu borom wax yi ko ne ko montagne bee ngay seen am na sama jaam bu fa beeru dama jaamu soo demee ci moom bu la ñaanalee sa sa dox gi dana yomb bi mu agsee ci moom ne ko yow jaamu bi yàlla bi damaa bëggoon nga ñaanama sama dox bi gaaw mu xool ci kaw asamaan moom jaam boobu ne ko ne yow niir wi wàccal yóbbu jaamu yàlla bii fa mu bëgg a jëm niir wi wàcc ba tollu Seydina Moussa Seydina Moussa yéeg dem sa saam gi nga xam ne ci la jëm Seydina Moussa suñu borom waxante ko ne ko xanaa dooma laaj lan laa ko mayee tawfiix ba mu ñaanal la nga mën a yéeg ci kaw niir bi dem fa nga jëm mu ne tekk di déglu suñu borom ne ko dafa doon da rafetal diggante ak ñaari waajuram rafetal gam doon rafet ak ñoom moom laa ko joxee daraja ji kon mbokk ba tey foofu feeñ na ci ay njariñam suñu borom ne wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa wa qul lahumaa qawlan kariimaa waxfid lahumaa janaaxa dulli min ar wa qul rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaani sagiira mu ne yow doomu aadama man yàlla maa la bind maay sañ a soppax ko ci sa kaw ba àtte bu ma neexal dama koy teg ci sa kaw waaye lépp yàlla da ciy doxal ak yërmande maa maa ci sa kaw nga di ma jaamu te waroo maa bokkaale ci dara say waajur it maa la sant ngay rafetal jëmee ci ñoom ndax xoolal fi nga jóge juróom-ñeenti weer nga nekk ko ci biiram moom waajur wu jigéen mu nekkee coon bu rëy nga xam ne lii suñu borom da koo tudd daa tudd waajur jigéen ñi coon yi mu daj ci diggante juróom-ñaareelu weer bi nga xam ne bokk na ci li muy gën a sonn waaye juróom-ñeenteelu weer bi nga xam ne daanak ak ruuxam da jege lool mu ko nit ne ko fàttalikul néew doole googu nga xam ne su waajur bu jigéen ñi làmb na ko te ya te ci yow mi yaay sabab si bi nga gënee àddina it téye na la ñaari at nekk ak yow ci ab coono bu métti métti loolu lépp suñu borom fàttali ko doomu aadama ngir mu bañ a weddi njekk ak weddi teranga ndax suñu borom bokk na ci lim gën a mën a fitnaale nit mooy teranga dikkal la lu baax dikkal la ba noppi nga daal di weddi fa mu jógee bokk na ci li mën a fitnaale nit loolu ndax day bañ weddi njekkam suñu borom ne yow doomu aadama bul gëdd sa ñaari waajur bépp baat buy tegtale ak manqué wala ak doyadal wala ak mu bàyyi ko ci sa jëm ñoom falaa taqul lahuma uffin wala tanharhuma bu leen sa wet na nga nooyal sa xol nooyal sa jëmm ba mel ni koo xam ne daa ami laaf te laaf yo nooy loolu mu di ko wàcce ci ñoom kemtu laayal nañ ko bëggee wax fid lahuma janaha zulli min arrahmat waxul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ñor gum ñor suñu borom ci waxi ne doomu aadama yegg na ci Moussa doomu aadama lan la war a wax ci ay waajuram yow yow doomu aadama neel samay waajur yi ñoo ma yar ba may gone ba ni ma toll suñu borom yàlla na nga leen doolee yërëm su yonent bi nag wax foofu ne yéen waajur yi na ngeen dimbali seeni doom ngir ñu man leen a jóg ndax métti wi nekk ci fexe ba sa doom dog la ci aw tiis dara jëru ko ci àddina dara jëru ko ci alaaxira xool leen ki nga xam ne da waajur wu jigéen da ko fekk muy jàng tawraat bokkoon ci waa banu neexoon kàddu lool waxtu wu ko daan jàng ñëpp ay ñëw keroog bi mu koy jàng waajur wu jigéen xam ne da doon naan sàngara mu ñëw fekk ko ci yaram toog ne ko diw te ngaa jug jàpp ba nag doo ko jël téere bi jàng mu bàyyi ba ñooña dem mu dugg ci biir dóor waajur bu jigéen ba pëqi bëtam ba dama ab bañam bañam waajur bi ne ko foo mën a jëmati ngërëmal yàlla du la jege mu dem def ci benn montagne dugg fa di jaamu yàlla ñeent fukki at bañ wax ne derem bi daa mujj kolewu ci yaxam yi ngir néew lu muy lekk ak néew lu muy jëfandikoo ba mu ñëwaat ba mu tàllalee suñu borom yaakaar ne yàlla war na ko jégal suñu borom ne ko déedéet xanaa sa yaayu ba nga defal musiba bu jégal la rek ci laa lay jégale mu ñëw ne ko yow sama yaay yow sama caabi aljanna wax wax ji rafet mu ne ko kooku kan la mu ne ko sa doom diw mu ne ko ngërëmal yàlla du la jege ba addina tukki mu daal di dagg loxo bi nga xam ne ci la mbéjee woon ci la ci la mbéjee woon waajuram koy sànni ci kanamam da koo dagg sànni ko ci kanamam ne ko loxo bii de dootul ànd ak man mukk ginnaaw moo defoon njaaxum googu mu xam ne ba tey amagul ngërëm mu dem taal sébu bu yaatu dugg ci biir ñoo àndandoom yi daw wax waajur wu jigéen waajur wu jigéen nag yaramam daw ci loolu mu ñëw ne ko yaa xurrata ayni yow ki sedd sama xol génnal yàlla jégal na la kon gis nga laataa suñu borom di ko jégal lam euh, fam jaar fépp ci aw métit ñeent fukki at yàlla nga nga dugg ko ci montagne di ko jaamu yàlla wala bi ko dagg sa loxo doyut nga dem dugg ci sébu ngërëmal yàlla doo laa fekk si waaye heure bi moo ñu xoj waaye am na solo lool euh, waxal nañu ci tàmbalee na waxtaanam ci sant borom bi tabaraka wa taala indil ñu tàmbali suratu sa nga xam ni fu ñuy takki ab sëy ca la gën a bari moom lañ cay jàng muy aaya yoo xam ne si borom bi tabaaraka wa taala daf cay feddli daf cay fedd li maanaam jokk ak bokk wattaqullaha allasi tasaaluuna bihi wal arham inna allaha kaana aleykum raqiba bu ñuy takk ab sëy danañ ko baamtu ay yoon yoon ni nañ ragal yàlla ci jokk ak ci dig maanaam ci mbokk gi ndax mbokk gi mbir la moo xam la si borom bi tabaaraka wa taala ëllëg yowmal xiyaam daf koy laaj ndax euh, ak bokk bi ko borom bi bindee dafa dem daal di laxas ci aras daal képp ku ma jokk yàlla dana ko jokk waaye ku ma dagg itam yàlla dana ko dagg ku jokk ak bokk yàlla dana la jokk waaye ku dagg ak bokk itam yàlla dana la dagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, waxaat ni itam koo xam ne si da ngaa bëgg am wërsëg man sarrahu an sa lahu fi risqihi wa an yunsa lahu fi an yunsa lahu fi asarihi fal yasin rahimahu te ñu nekk jamono joom si alal ñëpp a ko bëgg te yonent bi sallallahu alayhi wasallam day wax ci bii ne képp ku bëgg wërsëg na ngay jokk ak bokk jokk ak bokk nag ak fay bor bokkul loolu mooy lan mooy nii ki nga xam ne sii day nekk ba nit seet si ko mu door a dem seet si ko man du seet diw ndax diw seet si ma waaye bu la diw seetee nga seeti ko da ngaa fay su boobaa da ngaa fay waaye jokkoo ak mbokk yow kay diw mi la nanguwute seet si te nekk sa mbokk yow demal nga jokk ko loolu mooy jokk ak mbokk kon nañ bàyyi xel mbokk gi euh, moo ñu fi tax a tey muy lu am solo moo muy muy muy jokk mbokk mbokk yëpp daje fi kon ngir xamante waaye buñ fi jógee itam nuy jokk mbokk gi euh, fas yéene taxawaat am ci taxawaay bu bees kon ñoo ngi lay sant Eh, waxtaan wi neex na fa tabarakallah kon li des mooy waxtaan wi nee nañ dafa dafa xaw a kii maanaam heure bi dafa dem moo tax xam naa ne sañ xam te xam naa fokk ñu wàññi la sa temps bi de léegi dañ lay may dix minutes rek dix minutes nga waxal ñu kon ci eh, moom itam ci dimbalante kon ñoo ngi jox kàddu gi xam tam waxal ñu ci dimbalante bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin nabiyina muhammad ibni abdillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajmain dañuy jéem a tënkaat lañ préparé woon dem ko dëxëñ xam naa dara tax mu jaxasoo nag dañuy sof suñ kàddu ci ñi fi jiitu ginnaaw ñoom feeñal nañ ci alquran nim xéetale jullit ñi ci ñuy fonk ak mbokk xam ngeen lislaam diine ju ju ju ju méngak doomu aadama la ndax ki biin doomu aadama moo ko wàccee mu yàlla suñu borom subhanahu wa moo tax mbokk dàqul genn mbokk xam ngeen ne mbokk diine dafa am mbokk xeet am mbokk ci dëkkandoo même mbokk sax ànd voyage lépp alxuraan saxal na ko kon mbokk yooyu dikk islam dikkul di ci di ci dégagé benn ne jënta faale mais dafa dikk wax bi gën a foor bi ci topp bi ci topp waaye yëpp la accepté bu ci nekk mu xiirtal ci jullit bi mu fonk ko waaye nag bi bi mu ci jëkk a tudd mu ëpp importance mooy mbokkoo ci wàllu diine mbokkoo ci wàllu diine mooy mbokkoo bi gën a fort ñaareel mbokkoo bi mooy mbokkoo ci wàllu deret kon lislaam dafa dafa accepté mbokkoo yëpp alquran mi ngi wax benn aaya al axillaa yawma idin baaduhum li baadu li baadin aduwun illa al muttaqin mbokkoo yi amoon àndandoo gi amoon bu yomal xiyaama yëpp day dagg ba mu des bi nga xam ne yàlla moo taxoon mbokk yàlla tax taxoon nag tekkiwul ne mbokkoo diine kese même ki gëmul yàlla te nag ngeen bokk ci wàllu deret sàmm mbokk googu ngir yàlla mbokkoo ci wàllu yàlla kon mbokkoo lislaam dafa ci xiital ak ak façon mbokk gu mu mën gu mën a doon mbokk bi wax na ay aaya sànq ci alquran dama ciy tudd benn rek sun borom fi mu naan waabudullah wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bi dil qurba suratu nisa fekkee suratu baqara wa dil qurba na ngeen jaamu yàlla bañ koo bokkaale kenn xam ne moom moom mooy yàlla ku dul moom doo yàlla suñ paree na ngeen rafetal jëm ci seeni waajur ba mu paree lu mu ci teg mooy ak seen jegeñaale kon fexe ba dimbalante ba ñuy dund diine comme ni mu waree loolu mooy tomb numéro un te des fois ñu fàgg sàggane ko nag defe ne dimbalante gi mi ngi aju ci soxla yaram yi ku feebar ñu faj la baax na trop mais du tomb numéro un mooy dimbalante ci dund diine te ñun kët ñun ñi cosaanoo ci kër Maam Modou Binta aju woon nañ ko de parce que kuy xool da xam ne effectivement am nay valeur ba léegi mais valeur yoo xam du doon suñuy valeur mu ngi dugg ci ñun ak suñu njaboot di raam te dañuy bàyyi noonu rek ndax dund gi moom léegi dañoo topp rythme bi ni mu kii ba dañuy bàyyi noonu rek vraiment war nañu xalaat ay mécanisme yoo xam ne dana suuxataat ñun suñu diine defaraat su loo xam day defalaat suñu diggante ak suñu borom ndax kenn nag ñaar ñett mën nañu am yëg-yëg boobu waaye ñëpp mënuñu am yëg-yëg boobu dimbali leen ci ñu am yëg-yëg dañoo war delluwaat ci diine ndax ñoom ci nitu diine lañ toqi ko loolu dañ cee dañoo wat a créer ay mécanisme yu koy yu koy yu koy yu koy amal bokk na ci daara ji mais daara ji mënut a jël askan yëpp vraiment jàngale diine ci ci demee ci àddina bi ni mu tolloo ci même ci réseaux sociaux yeeg rajo yeeg yooyu war nañ ci xalaat yoo ay micro yoo xam ne dañuy suñu mbokk gi ci seen diggante ak seen borom subhanahu wa taala beneen bi ci li xam ne war naa ko tudd pour ñu ñu ci dimbalante ci mooy dimbalante ci aajo yaram yi loolu dafa yaatu mais mën nañ tàmbali xam nga ku nekk ñi la gën a jege ñi nga jege kër nga dimbali leen famille bi loolu ku nekk mën nga ko def sans ay orientation mais fexee loo xam ne nag as ku bokk ci famille da nga benn sécurité ne samay mbokk seetaatuñ seetaatuñ ma ñëpp a ci jàpp loolu dafa addina bi ni mu yaatoo laaj dafa benn doxalin dañ daan démb mënu ko régler comme par ma ci benn misaal rek ab famille mën na taxaw ne famille bi moom kenn du feebarate ci famille bi am problème ordonnance ab famille mën nañu organiser wu kenn du bokk ci famille bi bis na ko tey di amati problème ordonnance ñu créé benn kees boo xam ne pour loolu kese la nga xam ne man danaa dana gën a di dana ma gën a pour ma ma bokkaat ci sama famille parce que yëg naa ne bis na ko tey dootuma feebarati te am problème ordonnance te loolu yomb la waxuma dimbali sa waaye liñ li ñuy génne ci azaka ñun li ñuy génne ci azaka ku ci jëloon tant pour cent vingt pour cent ku nekk ci ñun li muy génne azaka ñu jël ko def ko ci benn kees kees bu dem fenn fenn fudul képp képp ku gis na kii jaaxle na ci famille la bokk am na problème ordonnance ñu problème ñu réglé problème boobu kon yooyu ay propositions yoo xam ne nit mën nañ ko appliquer moo tax addina bi fi mu toll dafa dépassé bàyyi nit ku nekk rek mu dem ak addina bi lépp dañ ko organiser léegi kon famille yi dañoo war a organiser di dimbalante dimbale boo xam ne day yaatu et puis jox nit ki sécurité ba xool tey jii soo demee ci addina bi ci wàllu santé kii ñu créé rek yooyu pour pour nit ki am sécurité ci wàllu santé la loolu famille yi kenn dàqu leen ko woon su ko defee mu réaliser am faj suñuy malaat yëg réaliser leen mooy ku bokk ci famille bi yëg benn sécurité boo xam ne am nga ko ndax ku la ko may fa nga bokk loolu dana la suudewaat dana la tax nga taqaat ci sa famille kon xam naa diwin moo gàtt lépp lu jub ci liñ doon wax ñu ngi koy sant suñu borom subhaanahu wa taala lépp lu ci dëng ñu ngi ñaan yàlla mu jéggal ñu ko wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim